um, Sister Lingere, ak buur géwél ah, kontanta baake la ala baraka baake ah, mbaɗen juuɓel laal kala hakkilo ɓulande doron sahel network tv albola juuɓe kan allah monen so programme o mi yalan komin kon ka natale na luwolon ah, from monday to friday mbi ɗum komin gafale ñamin doron mbimo luññontagol te buur géwél nen sista linguiralɓe fenne fof kan no mi yalan komin ko kummayata baake lay min ɓe dendin ñin national assembly ñin kool la because nga kibaro sotolle komin ko iko um, fatoumata diawara mm -hmm. atamo musolti an ɗon talendin uh, conséquence uh, uh, a uh, ñin itollale mo uh, ila aspiré uh, candidate lan mm-hmm. barin aɓa lorin parti mi ye walan uh, nppt mm-hmm. yo diyamo siyata ɗum iko uh, ketamolti mi yalan komin ko aman angale kan o moy aman angale kan o moy woto ñin wo dalilo kan ñing itolia jela ko commune ko ate man qualify pour ay tara national assembly to anyen ase parliamentarian bo dun keta fenati mi yalan commune min ko dia mo siata bakele mm-hmm. a ah, so molbe mo nyo nyinen ka kan ka fa ko min ko foto nya to nya mo morande anyen momi yalan ko marima ma angale ka mo ibaka fo ma o mari ngenta pour ka si dulata la bank bari famata jawara nata ko ñin kuma kaŋol dol jaabi ako ako parlement o mul laalte mi yalan komin ko ama imari ka siijela pour yela pour yela mul represent so amanke komin ko ita mari ñantala pour que angale kaŋo fo like queen elizabeth or you are someone who is from the United States of America. Mm -hmm. So uh, nisa fono da ma promole faham doron then I think uh, uh, that one will be understood. But in the uh, amos yahra model ko uh, ning um, ngamera Gambia ngan taka koro siro kala fang ka jube na local language um, languages uh, soul. ñen pour pawol take dundi ñen parlemento to saje jama asi sona ya no wol mari bulo kono pour ibe fang express no la ñaabe xam nga black queen mhm. li nga wax ni yëpp dëgg la si sa lingeer man dama foog ne jigéen dañ leen war di dooleel daal mhm. balaa ñu leen dee dimoot la war nañ leen leen dooleel peut mhm. être Fatmata Jawara fa la nekkoon xam nga nekkul ne kooku am nañ ko tey bu ees nekkoon na fa xam na liggéey mu ngi koy def te dama foog ne AIC boo fa demee pour teg sa euh, application dañ lay laaj ndax da ngaa dégg anglais wala obligation la wala déet. waaw ah, dañoo laaj ndax jàng nga. Ah? <laughs> la ndax ma ne ndax dañ naan naan ndax dégg nga àngale am déet ñu doog ko bind ci bi amut. Mhm. as far as you are Gambian. te lu waa tegul ci sa loxo. Mhm. nekku noo koo xamante ni lu waa daf la di téye. Mhm. pour nga mun a qualifier. te nga nekk Gambien boo doon xar matt sax war ngaa mun a taxaw. waaye nag buur dafa am benn. lu muy may chance. Mm-hmm. xam nga lu muy may chance. Mm-hmm. tey jii maa ngi jox ko benn sample. meew bi nekk Kaolack tey te kaw Kaolack comme Gambie la tool daanaka. Mm-hmm. soo ko seetloo dëkk bu rëy la. soo xoolee lu doog lu ko wër li nga xam ne foofu la bokk. xam nga tey jii boo nee biir Kaama xool ni sax biir Kaama ay saaña yëpp bokk ci moom. ti ci ci ci biir Kaama biir Kaama area kon su la bokk. te gën nañ biir Kaama kon loolu gox gu rëy la soo. am nañ meew boo xamante ne daara la daara la dem jàngi déggul français déggoo mu ne ko suñu former président bi bu mu njëkkee toog ne anglais bi baaxul te wooto industrie déggaloo ko mu ne afta bu ci biir bii mu ngi jàng yu suñ maa ji mi moom TFM ja jàngu toon waaye léegi jàng na ci biir li mu ba mu amee tey day taxaw làkk bu français si sa ah, bir wax. Mhm. am ah, na leneen lo xamantene ha nga waxon nga ko man ah, definitely dama contente trop ci lolu mhm. I believe it's high time pour Gambian scene mhm. for us to support each other instead of hanga trying to demote. you know because practice make perfect. So say um like nga li dafa nekk problème boo xamante ne daf dee commencer since the time nga people are going to school. fofu la dee commencer di nga gis nit nga mu ka angalé rek. def lu may rek receive call jël call bi uh, su ko defé ñu xam kan mo nekk ci line bi. alright hello. hello wa waaleykum salam soxna si naka nga def. ma ngi ni rek ba def leen dara. ñi ngi ni sante yalla bu baax fooy koolee ak noo tudd. Eh, eh, eh, ah, ah, ah na ah alhamdulilah yenn yàlla kontaan lépp yenn la hmm. waaw deug la hmm. Hmm. Linguère ah kay ah kay eh, waaw di nga ah, koy wax ci suuf. Ah, amiin amiin waay <laughs>